tey noo gisee mbooloom wilaay ni ñu mobilisé woo ñëw ci ziar si mbooloo mi de daa mën na wax ne moom du lu bees ndax naka jekk mbooloo mi ñu leen mel. mbooloo mi de xanaa sant yàlla rek moom mi ñu fekkaloowaat bis bi ñëw di julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba di sant Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma. wilaay ñoo ngi santaat bu baax di sant Serigne seex Gaynde Fatma tey am nañ kontaan lool nag macha allah di ñaan rek lépp loo xam ne ñaan na ko fi rek suñu borom nangu ko. li daal lépp sëñ Seex la. wilaaya ah ni ma ko gisee mooy xam nañ ne ñëpp ay taalibe lañ booloo nekk benn xam nañ ne sëñ bi rek moo leen ñor. xanaa di sant rek ak gërëm di ñaan yàlla Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak te xam ne lii moom koo ko gis xam ne ak yokkute rek la. yàlla rek yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax wilaaya moom laal suuf mukk ca kaw rek. dëgg yàlla kontaan rek kontaan rek mobilisation bi di ñëpp gis nañ ko. li ma doon wax sànq euh, section yi ku gis ni ñu ñëwee ba gam bi euh, xam ne Pastef ba tey mi ngi fi. mbégte ndax dafa am liggéey bu mag boo xam ne sëñ Cheikh da ko doon def mais bi mu koy def boobu bàyyiwuñ ko xel parce que li mu soxla woon mooy yee nit ñi xamal leen ñu xam seen bopp xam seen borom. Euh, li bettu ma woon. bég nañu loolu kontaan nañu lool ndax yàlla dogal na fii la mbir mi di xewee. ci Touba di section Touba kon ñu ñoo dalal gan ñi mel na ne section yëpp wuy si nañu nañu war a wuy see njaboot gi yëpp wuy see nañu kuréel yëpp wuy see nañu daayir yëpp wuy see nañu kon bëgg nañu lool kontaan nañu lool ci jotaay bi. am mbégte rek am mbégte ndax euh, daje daje daje soppe ak soppeem la ndax wilaaya si mu taxawam noonu la demee ni ni ñu soppee soppe nañu ko nu ko rawee. kontaan rek ak bëgg kontaan kase ak bëgg ndax. Euh, ñun lu ñun lu ñu sëñ Muntaxa def doy nañu lu ñu sëñ Muntaxa wax doy nañu lum ñu wanit doy nañu. ci seen bennoo Pastef bi ak euh, objectif bi nga xam ni euh, dañ koo yor naka jekk te lépp ñu tiire ko ci enseignement Serigne Cheikh. moom mi nga xam ne moo créé daayira bi ba lii am kon nag ñun dañ koy sant fu ñu toll day sant Serigne Mouhamed Mbacke mi ko suuxat ba mu egsi fii ndax mu jëwul pousse bu mu réer. di sant nag rakkam yi itam ndax ay jàmbaar lañ liñ man ak liñ mënut ñu ko ci def kon nag yàlla na yàlla jëmale kanam daayira bi te liñu ñu ci yaakaar yëpp yàlla bu yaakaar tas di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi wér. ci di liggéey rek te ñaan yàlla mu jëmale ko kanam incha allah. ndax euh, ah ñu ko sëriñ bi waxee rek démb la woon ak ñun tey jii ak ñun kon nag ñun ñoo war a góorgóorlu bu baax. te xam ne laxasaayu daal gën naa jot waaw ku gis yar bi daal xam ne macha allah sunu xol seet na lool. kontaan ci lool rek aw na yoon jaar na yoon am nañ teggin tey suñ ñaan gi nangu na moom lool moom leer na man naa ñun daal ñi ngi ñaan rek yàlla na bu déwénee mu gën a yokk rek. ñun ñëpp ko suñu xol seet na guy kontaan nañ ni mu daal mel melt nañ ko àndandoo nekk benn say xàccandoo dóorandoo di sam na suñ suñ suñu doxaa baax a baax yàlla yàgg fi daal di te ànd ak wér te liggéey bi. ah parce que fi moom wax dëgg yàlla moom mi ngi fi mi ngi fi xanaa ñëpp rek suñu borom ah, dimbali leen taxawu leen barke Cheikhul Khadim te fay leen seen yéene ci liggéey sëriñ Cheikh bi ñuy liggéey. te wér na ma ne mbooloo mi xàmmee wuñu toog bi fi tegoon bi fi tegoon ak bu suñu mu taxañoon mooy pas bii ñëw mooy du nit ñi di ko gis la waaye jëmmi sëriñ bi yëg na noonu moo tax a ñëw loolu rek dañoo ndax jotaay bi dal na xel te tam suñ ñoot rafet na sëriñ bi gënul waaye mel na ne gën na ndax ki mu yabal moom la ñu xoolee jëmmam kon yéeg bi ma am daal mooy bi ñëpp am rek bég kontaan ak itam am yaqin ci ne ziar bi moom ziar bu suñu borom nangu la. wax dëgg fa la man la ne man la ne moo teewoon ndax ndax yéen mooy la am solo te xam na yéen ji am ci mbooloo mi di ko wane saa su nekk di am mbégte lool wax dëgg fa yàlla. ñun moom bëgg Sëriñ Tuubaa lu mu ñu def rek doy nañu kon nag tey moom bisu bis bu wilaayee fas war a fasantu fasantewaat la ngir beneen yoon gën a góorgóorlu la ñuy wan ak gën am coloré ak gën a liggéey jëm ca kanam. xanaa li ciy door ko mooy gën a santaat yàlla ndax defoon nañ ko fi yàlla dimbali nañ aussi ñu defaat ko ren ñu ngi ñaan it ñi ko fekk ren ñëpp bu nii aussi ñu mën koo fekkewaat euh, ñaanal aussi sëñ bi ñëpp xam nañ coono bi mu nekkee euh, ndax yàlla xam na bi nu xamee ni programme mu Baye Fall yi am na sax amoon nañ ci ay rétisance waaye nag comme lu ñu jàppoon la ba noppi ñu xam ne lu ci mën a nu mu mën demee rek moom jàpp nañ ko ba noppi. waaye ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex wéral cër yi guddal fan wi ndax cër bi mu jox Daaru doos moom ñëpp xam nañ ko. li mu taxaay wax rek day gën a neex rek di gën a baax ba àjjana ndax ki ko créé du créé mukk lu suuf kaw la jëm ki ko créé du créé mukk lu suuf ki ko créé day mbër moo xam ne nii mbërum lislaam la te xam li def am xam-xam. làmbatuwut li muy def du jaayil kon nag Serigne Cheikh moom lu mu créé lu mu def rek noona la. alhamdulilah rabbil alamin daal sant yàlla daal sant yàlla. ni sëñ bi ni mu waxee moom surtout relation Daaru Minam ak euh, sëñ Cheikh moom la gën a appuyé bi mu ñu bi mu ñu mujjee recevoir affaire éducation surtout la wax ci loola tontu waaye tey ji moom li mu gën a wax mooy relation moom bi mu amoon euh, ak sëñ Cheikh. relation daanu miram ak sëñ Cheikh ki loolu la gën a appuyé ñuy war a xam rek ne tamit ñun ñëpp euh, benn lañu waaw moom lu am importance ñun ñëpp benn. ba tax na am nañ mbégte bu baax a baax yéen ñi nga xam tam yéenay xale yore liggéey bi vraiment dañ leen di ñaanal ndax yàgg nañ bëgg lu mel ni lii mais ñun suñu jamono loolu amul woon ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal ngeen am réussite ki la ngeen def ci barkeb Seexul Xadim loolu liggéey rek jëm ci kanam jox bopp sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tëwër ndax jàpp naa ne euh, bu ñu xoolee ne zikrulaay bi amoon démb tàmbali barki démb yi 24 heures zikru la non stop waxtu woo dellu si ñu ñuy toogaat ci jotaay bi loolu rek jàpp naa ne doy na sëkk ci dalum xal ci ne jotaay bi suñu borom nangu na ko kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. sëñ sëñ Muntaxa dañoo jiitu moo nu gën a bëgg sax ñun li ñu nekk kon aussi loolu ab soññee la war a doon boo xam ne waxtu nekk kenn ku nekk war ngaa def rétrospective xoolaat sa bopp euh, xool xam ne euh, des na lu bëree bare bëri ndax li ñu def ab joxañ la ñu ngi sant ñëpp rek sant mooy jërëjëf.